li naa ñëpp woo woo fu nu jëm ak coronavirus bi law la ma coronavirus mbas ma la coronavirus ginnaaw ñaari cas yi nga xamante ne am nan ko askanu sunu gaal daal koy faatule am na keneen koo xamante ni wàññeekooti na laa la wax oxo troisième décès laa la wax lanu am ci coronavirus ginnaaw Pape Diouf Pape Diouf bu Olympique de Marseille ak ka nga xamante ni moo di ndaw soosee di restauratrice bu siiw bi coronavirus bi jëlati na yóbbooti na geneen góor laa la wax gu am lu toll ci soixante-trois ans lay lay mooy yow ñun fu nu jëm ak coronavirus bi ba tax na nag leeral di fësal ak di xam ni la waax dinañ la moo di 7 heures ndax kat fi mu nii li yéem te jaaxal ñëpp moo di cas communautaire yi nga xamante ne ñooy wéy di am ci askanu sunu gaal te lu soof te metti lool ci li nga xam ne moo di cas communautaire yi mooy bu la dalee doo xam fa nga xam ni foofee la dalee duñu xam ku la ko wàll duñu xam fu mu jógee duñu xam fu mu ay waay waay waay waay waay waay leeral ni ma ca 2024 Macky Sall président de la république du Sénégal ba tey ma ngay wéy di ñaan la la wax di wéy di réclamer li nga xam ni moo di annulation de la dette africaine eh waaye naw ku nekk ci Afrique laa la wax ñu daal lay baar say bor la waral nag a baal seen bor nga xamante ni moom la ñu ameel waa réewu tugal du leen lu dul li nga xam ni moo di mbas mi coronavirus bi ni xas ni gàjj ni gajar ci askan sunu ga bala maa sori ma daal dikk yow ci bilang bi nga xam ni moo mu jorot bilang bi mu jorot niki démb laa la wax askan askanu sunu gaal ci 287 yi nga xamante ni def nañ ko di ay test set ca ñoom mujj nañu positif bu set ya positif ma faram fàcceel la ko juróom ya laa la wax ka contact suivi par nos services booba jaaxle booba méttiwul booba sonaluñu booba jaaxal ndax kat ka nga xamante ni kam mu dal la dinañ ko xam dinañ ko maîtriser dinañ xam ka nga xam ni moo ko wàll koo kay li yéem te soof kay te jaaxal ñëpp moo di ñaari kaay communautaire yi nga xamante ni moo ne xas ni gàjj na gajar ca askanu sunu xam ni moom la ñu dénk wàllum wér gi di wax ni waa Sénégal yëpp nanu gën a farlu nanu gën moytu nanu gën a daw ndax am nan adversaire boo xamante gaaw na soof na bari na doole mën naa dóor mën naa xeex te kenn xamul nooy xeex ak moom ndax ki nga xam ne day dóor di saaga ak màtteek a gàjja ak di la wokk ba ngay nàcc te doo ko gis boobi lépp adversaire du neex a xeexal ba tax na nag kon gaañi li nga xam ni moom la ñu war a def ngir moytu mbas mi rawatina cas communautaire yi mooy gën a farlu gën a toog ci kër yi waaye nag lu mu metti metti teewul ñoom démb lijjanti nan fexe bu wéral ñeent laa la wax kon nag fi toll nii askan sunu gaal ma mbir mi tàmbaleeg léegi am nañ lu toll ci trois ñi nga xam ne ñoo di médecin yi am na lu toll ci cent quatre vingt dix huit yoo xamante ni wér nañu laal la wax ba dellu seen sago eh waaye ndaw sax ba tey ñu daal di waxaat li nga xam ni moo di musuma maa ba kumba bi yéem ñëpp te ñëpp di kaay communautaire yi ba mbir mi tàmbaleeg léegi daanaka Sénégal am na lu toll ci trente cas communautaire communautaire du daanaka kay da koo am pale ko bii mi am na trente cas communautaire looy looy loolu kaay ma wax la nag commune ya nga xamante ne ñoo am kaay communautaire yooyu jëlal Louga am na cas communautaire looy lo loolu Saint-Louis lan la wax Oplo Ziguinchor Touba Mbour Thiès Kër Massar looy lo loolu jam ñaajoo nga ca biir Rufisque Pikine Thiaroye Gare Yeumbeul Sud Mbao Médina waaye itam Gueule Tapée itam bokk na ca Fass Colobane Plateau Golf Sud jogatina ca kaay communautaire ya waxi naan na ca njaareem laa la wax limaamu laay yoof ak fa nga xam ni moo di Mermoz dëkk yooyu ma la yimal yëpp bint ci nekk ci ñoom laa la wax am na cas communautaire cay cay cas communautaire waay waay waay jamono ji nga xamante ni Touba ci jëmi boppam laa la wax ma nga am ñaari cas communautaire ëpp lu wax nga ñett fan de ubbil yéene kaay bi di Sunugal 24 moo ko fësal xamle ko ci jooju la jamono moom Sunugal 24 ma nga yëgal ak di xamle ni naan bonne nouvelle fële nga xam ni moo di ca Tambacounda ndax ki nga xam ni moo di sëriñ boobee nga xamante ni dafa joggati woon mbir ma amoon coronavirus te jële woon ko ci shérif nga xamante ni dafa ñëwoon ci daaka bi a am foofee ca Medina Gonaas te daal di koy am kooku nag daal di nay wér alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na gën a wér amin ñu dem tey nag li nga xamante ni moom leen leen di tàggoo moo di mbir mu yéeme mu doy waar mi nga xamante ni am na fële nga xam ni moo di ca Ngànjaam Ngànjaam bokk ci département wu Tivaouane foofee ca Ngànjaam lu toll ci cent trente cinq kilogramme de chanvre indien looy looy looloo trente cinq kilogramme um tox mu bon mi la la fa jàpp laa la wax ah man de gaañ yi kenn gënu leen a ñeme laa la wax nit ñi bi wax couvre-feu ñii naan yegg ci confinement total am déet yow ngay la ci jàpp ngay sonal sa bopp di sonal sa mbokk day na waar siy laa tiir loo ci sànn rek nga bës clavier ñu dem daa kenn jëf tey jii li nga xamante ni moom la ni ñëw ak yéen mooy ñi nga xamante ni dañoo am ay borom kër waaye seen borom kër yi nekk ñu ci askanu sunu gaal ñi nag mu doon ñi nga xamante ni moo di jabar yi moo di moo di yéen daanaka sax niñ koy waxee rek dafa mel ni noonu la demee coronavirus bi nekkul nii ñi nga xamante ñoo nekk ci ci askanu sunu gaal rek la laal ba ci moodu moodu yi nga xamante ni ñoo ne ca bitim réew laal na leen laal gu metti lool waaye impact bi nga xamante coronavirus bi def na ko ci ñoom mooy ñoom ñi nga xamante ni ñoo di moodu moodu yi ñoo daan liggéey di góorgóorlu di dóor waar di ñafe di def la tout di am li nga xamante ni moo di ay koppar di ko yónnee seen ak njaboot fi toll nii nag soxna yi moodu moodu yi sonn gënu sonn rek foo ko natt weesu na ko ndax sax am na ci ñoo xamante moodu moodu yi ñu ngay fësal ak di xam ne ni yàgg na lool gëj na lool ba nga xamante ni gëj na noo jot la nga xam ne moo di ay koppar ñoom sax ci yenn bitig yi nga xamante ni daan nañ fa lépp ci yenn maire yi nga xamante ni daan na leen lebal ay koppar ak feneen ak feneen fi nga xam daan nañ fa lijjantee keroog weer wi dee seen borom kër yi di leen yónnee ay koppar ñu ci bare bare bare bare bari daanaka nangootuñ leen sax a jox li nga xam ne moom leen lañ daan jox ndax kat ñàkk fay nga xam ni ñàkk nañ ko fay bor yi nga xam ne moom lañu ameel ñii di borom bitig yi ak ñi nga xamante ne ñoo di ñenn ñi leen daan lebal la ba keroog seen boroom kër di leen yónnee lool loolu nag mu nekk lu metti lool mu nekk itam lu tiis lool tere nelaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy di moodu moodu yi nekk ca bitim réew te seeni soxna nekk ci askanu sunu gaal ndax kat ñoom bu ñu sañoon comme ne mbir mi daan demee rek lay demee waaye nag koo xamante ni da ngaa nekk confinement total maanaam ñu tëj la tëj boo xamante ni du sa foofee ca tugal yu ci bëree bëree bëree bëri ñoom yegg nañ ci confinement total te nag ku nekk ci confinement total doo tala sax a génn naan naa da ngay liggéey yi bay am ay koppar yooyu yónnee ñu ci bari ñoom la nga xamante ni moom nga dese ci ay koppar da nga siiwe noo ci dundee ña ca des jël la nga xam ne moom la ñu yor yónnee ko seen njaboot toog waaye loo ko yónnee sa njaboot toog toog toog la nga xamante ni moom nga leen yónnee bis dina ñëw mu jeex te bu boobaa soo amul loolu di yónnee xaw ma naka ngay def man kay ñenn laa yërëm te ñu jaaxal ma lool lool lool muy yenn moodu moodu yi nga xamante ne ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo yor seen i kër sax léegoo léeg danga ciy dugg ci kër moodu moodu goo xamante ni rakk mag kenn moo cay nekk moodu moodu ka ca des nekk ci mim réew di dóor waar bu fekkente ne kooko yónneewul ki nga xam ne moo ne ci mim réew di dóor waar kooku ci jëmmi boppam man naa gàddu kër ga waaye bu fekkente ni ñoom waa kër gi yëpp yëpp yëpp ca la nga xamante ni moom la nu yaakaar a dund du lenn lu dul li nga xam ne moom la moodu moodu bi doon yónnee mais ay kooku bu yónneewul ana la waa kër gi jëm waxuma la soxnaam waaye ay doomam yaayam ay rakam ak ay magam ñëpp ñëppay sonn cey moodu moodu loo ne cey moodu moodu war ngaa wax cey jabari moodu ndax kat jabari moodu moodu ci jëmmi boppam moom moo nangoo toog ko nangoo muñ lépp loo xamante ne luy bànneex la lu war a jóge ci góor jëm ci jigéen moom jabari moodu moodu nang naa toog di ko muñ waaye nag bu demee bala nga xamante ni mooy liñ ko daan yónnee muy koppar amatu ko ana fan la fi mu jëm laaj naa la ko te sax bu wattuwuto lu ci ëpp ci ñoom la nga xamante ni moom mooy lañu def fa mooy dañuy toog toog muñ bu nu mënul toog muñ li nga xamante ni mooy li ñuy soxla te mënuñu ko am bu fekkente ni dañoo nekk ci famille bu ndóol lool lool lool lool daanaka la ñuy def mooy dellu si seeni kër te su boobaa itam dina metti lool ca ña nga xamante ni ñoom la ñuy fekki ñu ci baree baree sax ci ñi nga xamante ni ñoo di jabar yi du moo yi ñoom ci seen jëmmi bopp waxuma la li nga xamante ni mooy seen borom kër daal leen leen ko yónnee te yónneetu ko waaye mooy njàqare ak tiis ndax kat sa jëkkër nekk ci réew moo xamante ni chaque jour la nga dégg ñu naan nangami faatu am na fa mille morts deux mille morts ay morts am na fa sa xel du dal yow li nga xam ne mooy say tey du lenn lu dul sa borom kër bi nga xam ne ma nga ca bitim réew ñibbisi ñi ci des sax la nga xam ni mooy seen yitte mooy saa sunu xëyee rek nañu fexe ba digganteeg seen borom kër appel vidéo ngir xam ni kat seen borom kër yaa ngi ci jàmm kon nag képp koo xamante ni xëy nga suba ba ngoon jot te déggante sa borom kër sa xel du dal ndax da ngay jàpp ni leneen a tax ñi nga xamante ni sonn nañu lool lool lool lool ci coronavirus bi ay waay waay waay ndekete yoo kenn gënta sonn ñi nga xamante ni ñoo di soxna yi moodu moodu yi cëy moodu moodu moo sonn cëy soxnaay moodu moodu kenn demul mu des man de li ma leen di conseil rek yéen soxnay Modou moodu yi te di leen ko digal mooy ngeen jéem a góorlu muñ te xam ni jaam ak pexem yàlla ak dogalam te itam yéen soxnay moodu Modou yi ma leen di xamal ni bu naqare ngeen daw buy neex du ngeen ko fekkee xëy na lii nga xamante ni moo di coronavirus di mbas mi natt la rek bu nu yàlla wàcceel yàgg yàgg dina ko teggi imagine la mu metti lool ndax mbas mi nga daal di daw wëlbatiku dëkk ba neexaat Modou moodu yi commencé yónnee lu ne ñu koy def ci askanu sunu wëlbatikuwaat di kàtt ñoom bu dee ko am xel te naan la eh sori ma jamono ji nga xamante ni metti woon na lool ci man yónneew ma la may tiit ak a jaaxle ndax coronavirus tëju bañ a liggéey dangaa génnoon dem bàyyi ma kon jabaru moodu moodu góorgóorlul nga muñ te xam ne yàgg-yàgg dina ñibbisi mbas mii di coronavirus bi yàlla na jóg ci askanu sunu gaal ak ci àdduna wërngel këpp seen mbokk seen xarit Fall Damel jàkkeen cëf Fall Damel